déclic tey ki ñu ci dalal di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseil président commission culturelle ak communication bu màggalu Touba moom Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma moo di kan xam ko naam dana jafe waaye dinañ ci jéem a tënk tuuti euh, nataalam ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diawo. Cheikh Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma ràññi nañ ko ci domaine yu bari bokku na ci casquette politique bi moom membre APR ministre conseiller président de la République le depuis juillet 2019 mu nekkoon tamit tête de liste Benno Bokk Yaakaar ci élection législative 2017 ci département bu Mbacké bari na ci liggéeyam lu muy woote ngir ñu investir ci Touba Mbacké surtout ci wàllu infrastructure ak tamit ci social bi Serigne bi en tant que président fondateur Pastef Consulting Engineering euh, di ci xar tànk tubéyam ci wàllu woowu xeex ndóol euh, ak microfinance alphabétisation ak yeneen adjoint au maire euh, commune bu Touba nekk tamit ku fës lool ci organisation Grand Magal de Touba moom mooy président commission culture et communication magal gi bi ci mujj amoon ci contexte pandémie bu doy waar moom moo yoroon sas bi ngir fexe euh, li xalif bi digle woon yëpp ci wàllu respect geste barrière taalibe yi sàmmonteeg moom lenn ci leeral jëme ci jaar jaar yi politique sax laa ko mën a tudde ñeel gano déclic tey di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma euh, mu fekk si ñu ñu am mbégte lool dalal ko bon dalalaat ko sax ci déclic la lay wax ndax màggal gi weesu déclic bi ñu defee woon ca Touba bokkoon na ci suñuy gan amaan mbégte dalal koo sëriñ bi Mbàkke ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm. Euh, jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay fay. di nuyu aussi ñi bokkal plateau bi <clears throat> di nuyu aussi mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan euh, di am mbégte rek dellusiwaat ci fii nga xam ne suñu suñu kër la moo tax vraiment bi ñu woowee hésité wuñ benn yoon euh, loolu aussi li ko waral mooy rafetlu taxawaay bi ak ak liggéey bi donc di leen ñaanal sam nag suñu borom rek dañ leen a kattanal. amiin bu ngeen mën a wécc yoon nga xam ne ci ngeen aw. amiin jërëjëf Mbacke ni ma ko waxee sànq mbégte la ñu am nga fekk ñu ci waxtaan woo xamante ne ji bu ko bu ma ko sama gars yi ñu doore ko muy am na mbir mu xewoon ci ci réew mi. Euh, affaire yi jaxasoo woon ñu ci doon tudd Ousmane sonk doon ci tudd Adji Sarr mu demoon sax ba jëloon yeneen i yeneen i dimension xalif euh, euh, général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké am ci taxawaay lu bëri tegee ci suuf déjà sa jàngat bu njëkk ci ci ci li xewoon ak taxawaay bi ci bi ci Serigne bi taxawee. waaw taxawaayu Serigne bi ci mbir mi loolu day du ñu ndax euh, fan gi rek maa ngi maa ngi li ci réseaux sociaux yi ñu naa daaw sëriñ bi ci œuvre sociale def na ci lu mat 400 millions kon kooku am na taxawaay bu bu dëgër dëgër dëgër dëgër ci ci réewum Sénégal euh, te loolu nekk loo xam ne lu tàmbalee ci moom la bu dee ci yoonu mu Mouride foog naa ne ci jamono Cheikh Amadou Moustapha ba léegi jaar ci sëriñ Falilou sëriñ Abdoul Ahad sëriñ Abdou Khadir sëriñ Saliou si Alaaji Baara di Cheikh Sidi Maxtaar ba ci moom ñii képp ku fi mës a nekkal Serigne Touba rek boobu taxawaay nga am ndax ñu ni ñu leen di xoolee moo di donné yonent bi sallallahu ti wasallam kaw suuf kon mbir mu am mu ne moom day xool bu fekkoon ñu baax ñoo ñii ban taxawaay lañ ci war a am moom mu am taxawaay boobee euh, kon te 1968 ngelaw bu doy war amoon na fi. si Serigne Fallilou nekk Touba yër rajo bi rajo Sénégal booba booba rajo yi bëriwut daal ne Sénégal défense bi mi ngi fii réew mi ku gàdd soo ay ceew la yem dem la liggéeyi te booba grève la woon boo xamante ni foog na ay français fu nekk hmm. ba tey da nga dégg ñu naan les cent huit mai 68. mai 68 mu nekkoon période boo xamante ne bii liberté yu bare bari foofu la tàmbalee d'ailleurs euh, loolu nekkul loo xam ne buleel la suñ mën taxaa nag bi lay amee noonu la defaat li ci ëppati solo nag mooy ànd gi ko ànd ak mboolem kilifa dina nekk ci loolu maanaam ànd ko même ak clergé bi nga xam day mel ne euh, képp ku guide religieux rek laay wax de manière élargie ci Sénégal jóg nga am taxawaay boo xamante ne bii suuxat jàmmi réew mi wax ak ndaw ñi wax ak nit ñi wax ak les acteurs politiques delloo si leen ba Sénégal retrouver toute sa sérénité qui n'aurait jamais dû moo tax mbir la mu ñuy rafetlu di di ko aussi nag ñaanal yàlla ak euh, di ko di ko jaajëfal ndax itam waxtu bu nekk war nañ koy war nañ koy tuubal ndax ku ko xam xam ne lu dut sunu borom jitteelu ku ko xam xam ne amul jotu def dara lu dul jàmm yàlla da ngay sax ñoo génn mu dox ci am ndox ab taw dem di julli ci kon kooku ñun peut-être ci suñu rëcc rëcc ak ci suñu manqué ak suñu bëgg àdduna waxtu bu nekk ñu koy teg firnde muy intervenir di ci wax di ñu lijjanti loolu aussi ñun amel nañ ko ak kon ñun ñëpp ñoo ko war a jégalu ñoo ko war a bar ak ko war a kumba daf ko baal leen ma de ko wax sànq mu ne. Euh, am nag ñeewante ci muy dugg ci way politique ndax politicien dañoo saay-saay moom mu di kilifa taxaw taxawaayu Serigne Touba ci kaw suuf muy moom mu yeneen kilifa yaa dugg ci diggante way politique ñaare bu la ci boo xamul fa nga yem dëgg wala nga amuk taxawu dëgg yeddaange nga nga ci mujj léegi politicien yi mu ko séqal tey bu fekkonte ne am nga looy xaar ci ñoom wala comportement bu ñu war am donte fexe nañ ba engagé Serigne Baba moom mu jël engagement dugg ci euh, lool loo leen di loo leen di conseil bon baat boobu te gi du waaw moo moo moo den man mañ jaarat donc xañ na politique xëccu àdduna la moo tax kenn ku ne aussi da ngay am taxawaay boo xam ne kenn ku ne aussi da ngay kàmbal sa morom da ngay naxante am na ci euh, li nga xam ne ñoom peut-être bërki démb sëñ bi def na benn communiqué communiqué bi euh, gis naa mu sant ci way politique yi ci sant ci kilifa réew mi ci li nga xam ne noonu la ko déggalee sant ci itam ku jégi ci ñi nga xam ne ñoom itam loolu lañu ko déggalee ba bépp manifestation bu ñu doon def ñu teg ko fi suuf donc foog naa ne kon loolu day wane ne te moom saa su nekk xam na fa muy war a yem ndax dafa am dafa am frontière frontière bi mooy lu baax frontière bi mooy lislaam tànkam bu mos a ngi ci àddu kon boobu garantie la am ci moom xañ na coono yi ñu koy teg li mu wax dëgg la war nañ ko jéggal war nañ ko tuubal parce que tey jii dañ ko war a préserver dañ ko war a dañ ko war bàyyi mu nekk ci yeneen ci ci ak jàmm yàllam ndax aussi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàtte ne ëllëg mooy suñu yaakaar ngir xett li kon am na lu ko war diggam ak boroomam ngir toggoo suñuy euh, suñuy manquement mais jàpp naa ne euh, du ci du ci dem ba gàcc di ko dal maa ngi sax tuub ci baat bi loolu mënut a nekk tey itam bu leen fàttine am na ñoo xamante ne bii ñoo ko wër di ko jàppale ci liggéey bi nekk ay ndaw di dem ak ak dikk kon foog naa aussi wet googu ñoom ñoom ña nga xam ne ñoo nekk moom liggéey moom matuwaay yi nga xam ne moom la war a jël ngir aar ko ba xaj na yenn yi du ci moom foog naa danañu ko def ñi nga xam ne aussi ñoom lay xettali di leen dimbali nag danañu ko rus ba am na yooyu aussi donte ñoom xam ne ñu ngi ko seq bu suñ ba xasee dugg si rek kenn ku dana am loo xam ne moom la ñu réservé loolu laa bëggoon waxtaan ak yow mooy ñi nga xam ne ñoom lay xettali Euh, comportement bi ñu war a am ak yow li nga leen di diggal loolu laa lool laa loolu laa doon waxtaane ma ma bàyyi la ak fàtti euh, Pape Djibril ak ak ak Makumba waaw euh, sëñ bi ñu lay nuyuwaat di rafetlu encore une fois sa teewaay si plateau bi Mouhamed dafa euh, dugg sànq ci question d' actualité man foofu laay taxaw. Mhm. Euh, muy coowal Ousmane Sonko dafa dem ba jux leneen gis nañu récemment récemment émeute yi nga xam ne am na ci réew mi ñu bëri nag joxoon ci baaraamu tuuma ne nguur gi xëy na dafa lajj ci ay ponk yu bëri ndax ndaw yi génnoon nee ñu kenn ku ne ak li la yëkkati ci mbedd mi lu ci ëpp ci ñoom nee ñu seen boolu mu ñu dafa fees. Euh, ban gis-gis nga am ci lu mel noonu. Euh, waaw analyse yi di def euh, bari na xañ na kenn ku nekk demoon ci mbedd mi yaa xam la la fa la la fa yóbbu woon nee nañ am na ñoo xam ne ay coono yu ñuy dund moo leen fa moo leen fa yóbbu am ñoo xam ne jàppale un leader politique moo leen moo leen taxaw du kon ku ne rek ak la nga xamante ne bii moo ko moo ko taxaw jóg mais li li nga xam ne mooy mooy li am solo moo di ñu jàpp ne. xañ na ngelaw loolu fi jaaroon di seytaane soo xamante ne bii naroon naa indi musiba ci réew mi ay loxo yu baax jóg fekk ko ba mu mu jàll mais mbir la moo xamante ne bii surtout ci contexte bi mu amee woon ñu nekk ci vraiment ci dans un état ci en tout cas waxtu xam ne lépp normal la woon nit ñi di dem ak dikk liggéey xëy xëy rek loolu xëy xëy këpp suñu kaw mbir mu mbir mu xaw na doy mbir mu doy waar la mbir mu mbir mu dis la mais li am solo te jii moo di kenn ku nekk tiire ci ay leçon ndax ku ne am nga ci am nga ci wàll bu tiire ay leçon nag nga jël say responsabilité doxal la nga war a doxal ma li nga xamante ni moo amoon sunu borom suturaal ñu ba du ba du amaat. alors président moom bi mu defee communiqué dafa wax ne il a compris wax ne sax dégagé na 350 milliards sur les trois prochaines années. pour waaw pour l'emploi des jeunes. Euh, tey jii li mu ne il a compris ak yow jeunesse bi euh, contestation bi ni nga gisee mu am doole ban jàngat nga ciy def. lan nga jàpp ne moo sooxee xam nga xam nga da nekk ci réew boo xamante ne bii. soixante-dix pour cent yi nee nañu amuñu fanweeri at. Mm-hmm. même boo jëlee moins de quarante ans sax da dem ba da dem ba quatre-vingts pour cent. Euh, baal ma baal ma sëriñ bi Mbacke parce que il faut que ñu changer micro mm-hmm. mu ñëwaat ci laaj bi nga xamante ne ji laaj nga ko jëm rek ci euh, li njiitu réew mi Macky Sall fas yéene am ne taxawaay bokk na ci euh, ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk suma juumul. Ah, waaw ngir ngir ndaw ñi. Uh-huh. et c'est important parce que fii ak bi di jeex. mandat bi fii muy jeexal moom 2024. question bi dootul dootul jóge ci table ci mhm. Mhm. parce que c'est une question cruciale boo xamante ni régime yi fi jaar yépp dañoo am jafe-jafe ngir inscrire ko ci dynamique boo xamante ni dinañ ko mën a régler. muy l'emploi des jeunes. muy xale yi. Mhm. au-delà même de l'emploi c'est la prise en charge de la de, la jeunesse. ci niñ ko war a jël en charge. ba mu ba mu ba mu am solo lool. dafa des parce que du question boo xam da ngay xëy tey régler ko. li ngay def mooy da ngay jël rendez-vous avec les générations à venir. waaw ah, mooy da naan question bi dinaa tàmbali ji ji boo xamante ni fii ak 25 ans xëy na ci la ñuy récolter les fruits de ce labeur là li muy li muy jur. Mhm. waaye léegi boo gisee pourquoi politique yi euh, am jafe-jafe boobu mooy ñoom urgence bi moom moo leen gën a yitteel. mooy coow li jóg na naa ko fay tey à mhm. tout prix. Mhm. coow li da koy fay tey tu na règles pas le problème mais tu le déplaces. loolu moo tax jeunesse bi daf lay dabaat loolu moo tax tey sëriñ bi wax na ko léegi réewum réewum réewum ndaw la ñu yor. Mhm. Hmm? donc euh, soixante dix pour cent moins de trente cinq ans. Mhm. soixante pour cent amuñu vingt ans. Ah, xam nga xam nga dañuy faral di wax ne. ndaw moom deretam day tàng. xam nga loolu lépp looy def tey. Mhm. ci wàllu élevage. jeunes yi ban place la am ci élevage ban place la am ci agriculture. ban place lañ am ci éducation ak formation. ba ñu am ci lañ am ci pêche. xoolal li dee ci géej gi. Mhm. ban place lañ am ci innovation. Mhm. ak numérique. donc dañu am loo xamante ni moo tax euh, ba ci le département de la jeunesse ak les politiques en faveur de la jeunesse. Mhm. ba ci ni ñuy gérer xale yi dañ naan dafay mel ni sax action de solidarité la te obligation la. du action de solidarité loolu la loolu la nguur yi souvent di def tamit jëmale ko ci suñu kër diine yi dañuy foog da dégg sax ñu am président may nañu président may nañu te président mayu la dara dafa am responsabilité assumée mission bi tax ñu teg ko foofu très bien donc changement de paradigme la ak changement d' approche bàyyi infantiliser parce que li ñu naan xale yi souvent du ñu ay xale de ñu xam li ñu bëgg lañ mais infantilisation moo tax duñ ko mën a régler. très bien muy muy lu am solo ñu ñëwaat ci li nga sëñ bi mi ngi woon euh, sëñ Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma mi ngi doon euh, tontu yaa ngi tolloon ci Sénégal day réew moo xamante ne ji jeunesse bi dañ fi am doole. waa xam nga euh, ndaw ngi dañoo dañoo bari ci réew bi mais suñu principal problème mooy am nañu problème mu formation ak qualification loolu mooy principal problème bi parce que tey boo jëlee tey jii rek boo jëlee monsieur le président de la république tey. ñu ne def nañ ci ndaw ñi 2012 ak léegi loo xam ne jege na 700 milliards euh, mais nit ñi tàggat bi dafa des te am na loo xam ne aussi dafa yàgg naa soxe xaj na peut ñu di ko ñu ko seetaatu muy ci wàllu lekkool bi mm-hmm. te da gis koo xam ne day jàng ba dem université nga tàllal ko micro mun laa tegalal ñaari phrase yu cohérente ça veut dire qu'on a un problème de de de formation et de ressources humaines nga jël Sénégal ga fi nekkoon nga jël ñi nga xamante ne bii ñoom nga daan dégg dans le débat public te ñu daan abordé ñu daan dikki euh, élégance bi nekkoon ci ñoom classe bi ñu amoon te nga ñëw ay saaga da ngay dégg donc am na am nañu jafe-jafe à ce niveau là lii nag mën a nekk une secousse boo xamante ne bii ñun ñëpp dañuy jóg ressaisiru ne ah attention jot na kenn ku nekk jël ses responsabilité bu dee ndaw ci seen bopp ñu nangoo jàng nangoo tàggatu ñeme coona xam ne kaala ci ndigg lay njëkk avant avant bi ak ci bopp. maanaam mu benn déclic daal. ça très important. Mhm. Euh, naa dellu si li li sëñ doon wax léegi ci wàllu euh, ci wàllu mbab yi fi amoon fan yi mhm. loolu. rek jàpp naa ne si révélateur ci suñu état d'esprit euh, bu fekkee ndax tey jii liggéey boobu ñu baree bare bari boo leen ko joxee duñ ko liggéey man dal na ma Touba ñu war fa jël ay ay nit may wax ni yàggul ça fait peut ay un mois mm-hmm. lu mat fukki poste yoo xamante ne bii aw ma ñu ma ko jox ndax koo jub ma man du ma bale mbedd alors que ñu ngi leen waroon fay lu mat soixante-dix mille francs te ki wax du ma bale mbedd moo ñëw di la ñaan cinq mille ak dix mille ça veut que on a problème ci sunu bopp parce que société bi moo stigmatisé yenn. liggéey liggéey yi. société bi aussi moo dem ba valoriser tul ni mu war a valoriser liggéey yi bu fekkente ne bi nag dañuy privilégier peut-être lijjanti ak laqar ci loolu day poser problème il faut ñu dellu ci yenn fondamentaux yi nga xamante ne bii moo sosoon sunu société yi valeurs yi nga xamante ne bi sunu société ci la reposé woon. au niveau des pouvoirs publics président de la république yàgg na cee def nee na je vous ai compris ça veut dire que évaluation bi war a am ci di jàll dana am bu loolu amee ba pare yoon yi nga xam ne moom la war a xàll mu jëlal ko boppam ndax le fonds sera logé à son niveau au niveau de la présidence mu koy tegal bëtal boppam di ko xoolal boppam xam ne yëfi boppam la ndax bu mbir mu ne kët ne jonn ñëpp ci moom la ñuy delluwaat su boobaa jàpp naa ne la mu ci bëgg foog naa dina ko am ñeneen ñi aussi nag ñi nga xamante ne mooy ku jëkk politique gi ñu xam ne tey ndaw ndaw li la topp aussi nga am ci moom kaddu am ci moom baat dafa am ci loo ko war a xirtal muy formation bu ma doon wax muy liggéey ba mu doon wax tey gi dans les partis politiques moom benn parti booy dem ba ma école du parti y a plus de formation dans les partis dañuy soxla rek pour la mobilisation jox la t-shirt joxal 2000 francs ay ci ñëw tàcc yuuxu dem après ñu tasaaroo alors que c'est pas ça la politique est très noble c'est une école de formation boo ci duggee dañ la war a encadrer jàngal la toppatoo la ba nga nekk ëllëg mag moo xamante ne bii da nga mën a taxaw sa réew. nekk un citoyen modèle la. kilifa diine yi aussi ñu xo ñu gën a bàyyi war xel yar bi parce que loolu ñoom seen responsabilité la ndax malheureusement. dañu am école boo xam ne day joxe xam-xam te di yar mooy sabab boo demee ci école yeeg université yi ñu tegi kaar di sànni xeer parce que peut-être ndékkil tey doyul wala neexu nga dem ci daara ja ñoom xëy na dañuy yelwaani waaye duñ toj kaar duñ sànni xeer duñ gërëm. Mm-hmm. yar bi mooy différence bi. ci sa ci sa analyse wax nga ni problème mu qualification dafa am ci wàllu emploi yi. nit ñoo xamante ne ni amuñu ay lijaasa jànguñu loo xamante ne ni bënn na ba man leen may liggéey ak itam nga ni bii di ñëw nii dañ koy logé waat à la présidence mais pour man loolu am na ñoo xamante ne ni am nañ qualification professionnelle munuñoo liggéey bu yàggut ak ñi ngi dégg ay enseignants yoo xam ne FASTEF lañ génne woon ëpp na juróom-benn at ba léegi mënuñu leen a dugal te gouvernement bi soxla na ay enseignants beneen bi DER bi. présidence lañ ko logé parce que délégation générale la te loolu terewul ba léegi li ñuy ragal mooy euh, li ñu leen doon jiiñ dañoo politiser financement yi ba fi mu ne nii mi ngi am est-ce que ñaar yooyu bu fekkee ay variante la ci sa analyse nekkut loo xamante ne ni war nañ koo dépassé waat ci fi ñu jëmaat ci solution. Euh, euh, DER bi contrairement ak ak lu ñu bari di wax quand même. Hmm. man loolu mën naa ci am na lu ma ci mën a seere parce que am na lu ma ci lu ma ci gis boo ñëwee dans département de Mbacké DER la ma ëpp na un ëpp na un milliard te li ñuy wax aussi dañ koy politiser du ma ne politiser wuñ ko parce que aussi ñoo koy wax xawma fan lañ ko teg mais man gis naa mbooloo mu bari mu ànd ak président de la république te munuñu cee am ba ña ngee kaas ak ña am na ñoo xam ne sax géddoon nañu sax ci rajo bi di ci wax bi mm. nga xam ne Pape Sarr ñëwoon na Touba un mm. milliard pour quel impact sëriñ bi loolu mooy yëf yi xam nga xam nga tey bu fekkee jëri bi euh, financement day am na ko jiitu tàggat da ko war a jiitu tàggat da ko war a jiitu. mooy politisation. man man man man su ma non non non kooku kooku du politisation. bu fekkee jox nga koo xamante ni yow wóor na leen amul formation bi. tàggatuñu ko man na la lan moo tax ñu jox ko. may ma rek màggale kooku du politisation. Hmm. parce que bu doon politisation dañu koy jël jox ko ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy seen i jege ñaale ñoom ñoo ànd ñoom te demewul noonu te man fa ma gis dëkk fa gis ko donc demewul noonu. te aussi bu ni amul benn impact impact bunta ñàkk ndax mu a jël un milliard dugal ko dans un département mu nekk zéro impact. mais impact bi anamu. mais am na ñoo xamante ne bi tey ji am na ci liggéey tey boo tey boo ñëwee tey à Touba rek ña nga xamante ne bii ña fa nekk di fa dawal ay charrette der bi dajal na leen jël xaalis jox leen financé leen ko boo ñëwee tey ji à Touba am na ñoo xam ne ay jigéen lañu di yëngu ci wàllu transformation de de céréales di yëngu ci wàllu savonnerie di yëngu ci wàllu teinture. ak yu mel noonu ñu ci bare bari tey jii DER bi financé na leen te jigéen ñoo ngi tey jii boo gisee ak difficulté yoo xam ñu ngi koy dund tey xam nga ne li nga xam ne moo yor ci suuf mooy ñooñu dem ci marché bi ak dikk di ñàq di dimbali seeni ay borom am na impact am na li am solo moo di loolu nga xamante ne bii mooy li des naka lañuy def ba ba joyanti ko jubbantiku ba lépp mën a tegu ci raay bi. léegi évaluation parce que la question de de l' impact moom moo ñu nar a sonal dans ce débat là parce que président bi gis nga ba ci mbënd mi bi mbënd mi amee dafa ne nañ ko defar rapport en conseil des ministres ci mbas mi it rapport bi revendiqué gars yi laaj nañ ko ba sonn ba tey ñoo ngi naan milliards yi fu mu dugg ci wàllu jeunesse aussi pour man ventre mou bi ci politique publique yi ñu am. mooy évaluation bi nu ñu koy defee ak kan moo ko war a def ak ndax dañuy def une évaluation sur les chiffres wala ndax dañuy def une évaluation sur les impacts réels. tey bu ñuy def une évaluation sur les impacts tey pour pour ñu mandargaal ñu ko génneel ñu ko jafe-jafe bu mag la ci gouvernement bi am loolu pour yow sooxe bi fan la nekk. Euh, gëw ma ne jafe-jafe lay doon pour gouvernement bi mën a évaluer politique publique yi nga xamante ne ñu ngi koy mettre en place. parce que tey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàtte ne avant ñu mettre en place DER bi dañuy def xaalis di ko jox ay nit pour ñu koy pour ñu koy saytu am na ay difficultés yu tara tara yoo xam ne moo fi nekkoon ñu dikk tudde ko financement rapide pour que mu mu gaaw te boo gisee également taux de xam ne am na dans certaines régions li ma ci mujj a gis war naa yàgg tuuti ñu dem boo demee dans une région comme Ziguinchor am na taux de pour cent à l'époque ki nga xamante ne bii parce que parce que ça c'est un indice pour évaluer ki nga xam ne liggéey na fay di laajaat ça veut dire que ne am na rentabilité ndax moom doon rentabilité dafay perte xaalis bi dellu si waat donc li nga xam noonu la ñuy reconstituer fonds bi déjà rek c'est premier indice pour ñu xam ne lii kat mi ngi mi ngi dox te te am na njariñ maintenant pour ñu évaluer ko écoutez mën nañu jël ay cabinet ñu xool ban impact la am réellement dison su la création des emplois. Certainement, ils ont des, des, chiffres. Il y a aussi donc les corps de contrôle de l'État ci en moment ou un autre, ou, ou danañ ci dugg si pour également xool lii kat xaalis bi fan la jaar fan la dugg et aussi fi mu dugg est-ce que am na fa njariñ mais c'est sûr que am na njariñ ci nit ñi parce que nit ñi tey jii boo demee 80 pour cent nit ñi ci secteur informel la ñuy dund te dëkk bi métti woon na jafe woon na li yàq lu bari rek mooy mbas bi ñu dund mmh. mu këpp ci suñu kaw te ngeen xamul fu ñuy jóge pendant un an réew mi tëju àdduna si tëju foo dem ci monde bi mu am ay ay ay manifestation mu am ay lii mu am ay laa donc loolu aussi impacté na ci opportunité la mbas mi ci ko xamante ne bii daa wane daa wane rek daa wane faa yi rek non non non je ne pense pas je ne pense pas dama ne la man je xamante ne bii teeloon naa jóg defar ay masque ci atelier di ko jaay kooku opportunité la ci moom moo tax ma daal moo sens. Mhm. <laughs> mais man foofu daal la waxee. mais wanul fay de non non wanul fay. mais euh, mbas mi si du réel difficulté. parce que bo tey boo dee xaar taux de croissance bu bu 7 pour cent xëy xëy daanu ci peut-être 0,8 pour cent. mais ça veut a quand jafe-jafe am na. ay rëq-rëq am na Fati. waaw fi Pape Djibril nekkoon sax laa bëggoon mu mu taxaw fii muy opportunité yi ak ak faay man du ma si mhm. ñëwaat mais li nga wax sànq ne ki toog atelier am defar ay masque man j'ai envie wax keneen koo xam ne beneen bu yëngatu peut-être ci ay yoo xam ne peut ngi ko doon jéggaani euh, bu fekkoon tey amoon nañ ko ndax bi mas mi bi ñu tëjee réew yi ku nekk xam nga li nga ñàkk ak li nga mën ak li nga mënul foofu aussi est-ce que jàppoon ne war nañ fi mën a gën a taxaw nga xam ne suñu acteurs locaux yi fi nekk di def ay jéego ñu gën leen jàpp gën leen a dëgëral. mais bien sûr mais loolu def nañ ko parce que parce que boo jëlee euh, le le le plan d'action prioritaire euh, bi yëf yi amee dañ ko dañ ko dañ ko wax ajusté accéléré. donc dañ ko dañ ko dañ ko tëggaat mais bi ñu koy tëggaat ban constat la def te loolu yàgg nañu ko wax moo di ne suñu koom-koom yi pas Sénégal mais comme koom yi Afrique yi c'est des économies extraverties. ndax dañ ko donnu ci tubaab bi tubaab bi nekkoon fi nekkal fi boppam daal ne kat waa Sénégal naa jële ceeb ci dëkk sàngam jox leen ko ñu ko lekk ma bay la loon gerte bay la loon lii man di ko jël di ko génn réew mi su ko defee day benn moom rek moo fi nekk di am euh, disons di di di di nekk indispensable ndax moo ne ci diggante bi moo jële fee di indi fii di jële fee di yóbbu fee fexe ba kenn fexe ba kenn du moom sa bopp kenn du man sa bopp mais tey jii bi ñu defee constat boobu lan la ñu wax ñu ne léegi kat li nga xam ne mooy priorité bi moo la ñu am suñu sécurité moo xam sécurité ci wàllu ci wàllu yu jëfandikoo la moo xam sécurité ci wàllu ci wàllu garab la moo xam sécurité ci wàllu sante la ñu ne nañu fexe ba dëgëral suñu secteur privé local bi fi nekk te loolu firnde bi ci am suba ku jàmbaari Abdoulaye Dia ak ñi ma àndal ñi ngi ñi ngi nar a démarrer li nga xam ne mooy centrale électrique bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest et c'est des Sénégalais. Mm-hmm. ça dire que à juste mi ngi am ñu ne nañu dëgëral sunu ak sunu mbay mi ñu ngi dëgëral suñu mbay mi jël lu man 1000 milliards ci ci ci ci ci 14700 milliards yi jëmale ko ci wàllu mbay mi pour que ba pare aussi daal ne li ñuy mbay nañ ci gën a fonk li nga xam ne mooy li ñuy lekk mais du ñu def agriculture vivrière mais dañuy dañuy bay def ci valeur ajouté pour que ëllëg diggante bu gàtt moom mi li muy sol wala yóbbu li ngay sol peut-être coton bi di jóge fii ci biir Sénégal. sauf que amoo industrie. ci lañ jëm si. kooku c'est l'autre pilier. xam nga dañuy dañuy door maa ngi lay maa ngi lay wax donc mbay mi la ko tabaat mooy leen wàllu éducation bi. Sénégal tout nos cerveaux bala ngaa jàll nga baal ma rek dagguma la mais mbay mi dañoo gis borom pompiteer ji. Mm. mi ngi ci télé bi. Ah, bay nañ ko ba noppi mu def ci seen loxo dégg naa léegi coo ci rajo bi koo xamante ne nii nee na léegi ci pompiteer bi lay xont ay xaram. Ah, ça c'est ponctuel. ak tamaate donte donte métti na. Mm. ci la jëm si. Mm. parce que parce que aussi booy defar un plan stratégique doo ko def rek ci ci saasa da ngay def ay constat gis ne kat mbir mi sooxe na nga ne kat nga évaluer daal ne nangam laa soxla ngir joyanti mbir mi. commercialisation nangam nangam jooju nga soxla nag boo ko defee ci ngay nag dem fii at fii ñaari at fii ñett fii juróomi at pour que problème yi mel noonu duut fi am mais li nga xam ne mooy li wér man baykat la xam bay la li nga xam ne mooy li mooy tey boo demoon ci ñi nga xamante ne bii ñooy bay ci yenn gox yi danañu la wax ne suñuy condition de vie amélioré wu na man am naa sama benn xarit mi ngi bay fii ci Poro mais nee na ma tey boo fa ñëwee charrette amatu fa fas amatu fa boo ñëwee koo gis maanaam bay na ba ba ba ngi sant yàlla. Hmm. mais day am loo xamante ni xañ na situation bu ponctuelle la bu posé wu. loolu dañuy jéem a seet naka lañ koy saafara pour jàll mais c'est sûr que politique bi ñu jël ci ci wàllu mbay mi yàlla suturaal ñu ba tey jii ñu nekkat ci wàllu gerte am nañ lu mat 1 million cent mille tonnes loo xamante ne bi xañ na musuñu ko musuñu ko am ñu ne tey bu ñu jëlee bu ñu jëlee lu mel ne dugub ak yu mel ne ñuy dundee. Sénégal lañ ko soxla am na quatre-vingt-quinze pour cent de ses besoins kon on kon on tend vers euh, l'indépendance alimentaire njàng mi su ko dikk ci laa doon dugg léegi moom itam ñu jël lu bëree bari féetaloo ko jëmaat nag ci industrialisation bi fonkaat suñu secteur privé bi nga ne tey boo jëlee PAP 2A boobu 39 pour cent yi ak secteur privé lañu koy defal ça veut dire que ne bu nu yàlla suturaalee ñu génn ci lii. mën nañu bu ñu doxee diggante bu gàtt foog naa li ñu bëgg suñu borom mën nañu wax def xam nga xam nga lu ma jaaxal euh, bala ñuy dem ci beneen sujet mooy sànq wax nga ko mm-hmm. ay jéego yu def ci wàllu njàng mi mm-hmm. wax nga politique bu baax boo xam ne am nañ ci yéene pour wàllu mbay mi secteur bu nekk gouvernement bi mi ngi ciy góorgóorlu mais li jaaxal nit ñi mooy dañ ciy def xaalis di ci amal ay ndaje am ci ay yéene mais saa su nekk dangay dégg ña nekk ci secteur booba di ñaxtu li nga tudd njàng mi moo tax sama xel dem ci lan mooy expliquer loolu Euh, xam nga ndar xëyut xëy sotti te lépp aussi munta munta jàngandoo te te te boo jëlee sunu suñu réew yi di réew yoo xam ne ay ay réew yu néew doole lañu problème yu bari quand même mënuñoo xëy xëy rek mel ne peut-être réew mi gën a avancé ci ci monde bi et quelle soit la volonté de ceux qui sont là quel soit également seenu xereñ ak seenu bëgg réew mi tout le temps dina am ay ay manquement. dina am ay est ce que amuñu problème gouvernance euh, est ce que gouvernance bi gënul gënuñu sonal que que que moyens yi parce que xam nga asiatique yi à un moment donné ñun ëpp ñu leen woon moyen ëpp ñu ñu woon moyen ñun mais ñoom dañu comprendre rapidement que les ressources même si elles sont limitées la créativité est illimitée te créativité boobu dañ koy teg ci gouvernance bu sobre et vertueuse au vrai sens du mot waxuma le slogan mm-hmm. <laughs> ba pare boole ko ak benn éthique boo xamante ni moom la ñuy am surtout ci ñu nawlonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk infantilisation bi nga wax léegi parce que bi ngay wax agriculture yëpp man gisuma man dama li ngay wax agriculture yëpp ah, man waxuma infantilisation yaa ko dama ne damay dëggal infantilisation bi parce que li ngay wax mhm. agriculture yëpp man paysannerie lay gën a gis mhm. parce que boo ne agriculture rek man maa ngi xool xale bi nga xamante ni gis na ne opportunité d'affaires nekk na ci mbay mi ba nga xamante ni la mu fay jëlee la mu fay fayeeku ci chaîne de valeur yëpp muy jigéen ñi ak xale ya dina la permettre nga mën a soppi sa dund fayal sa jàng say njaboot boo feebaree mën a faju ji loolu moo des c'est-à-dire que moo tax ma jàpp ne ambition bi ñu am ci agriculture comparé aux autres pays yi nga xamante ni dañu sukkandi ci agriculture comme Maroc dangay gis ne dañ ci def ay jéego nous sommes encore très minimalistes et pas du tout ambitieux par ak li nga xamante ni moom la ci bëgg chaque année on a des problèmes par rapport ak semence yi distribution de semence par rapport à la machinerie est-ce que jàppoo ne on a beaucoup plus un problème de gouvernance ba lépp loo xamante ni war nañ ko joxe mu egg fa mu war a egg qu'un problème de de moyens. on a surtout un problème de de de de, de paradigme et de transformation sociale. man loolu laa gën a gis. maanaam. Euh, su ma la waxee loolu moo ne tey jii tey mbay mi am na ñoo xam ne pour ngi jëlee leen Dakar gii yóbbu leen ci àll bi ñu bay c'est tout un problème. ak condition yu ñu fi mën a fekk parce que gëm nañ ne bay égal baadoo la ñu ñu ñu ma ci terme bi parce que man góob ma baadoo la am na donc loolu suñu mentalité la donc dañu war a changement de mentalité moo war a am moo tax ma ne transformation sociale parce que lu man di am ak lu man di xew ñun la ndax ñun ñoo dëkk Sénégal ñun ñooy ay sénégalais quel que soit nag les positions day varier rek ku ne jaar na fi dem ku ne jaar na fi ku ne jaar na fi mm, mm, mm. Euh, tey jii yaa ngi wax problème mu problème mu bay. am ci xaalis yóbbu sa doom école. mais am na ñoo xam ne da nga dem ci àll bi nga mais lu lay wax man sama doom dugg école et ça problème donc au plan social am na liggéey boo xam ne dañu ko war a def bu ñu bëggee les pouvoirs publique li ñuy wax ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci ci suuf man ko dikk. kan moo ko war a def sinon sa devient un dialogue de sourds. kooku ça incombe a tout le monde. même yéen hommes de médias am ngeen ci rôle. parce que dañu leen déglu. Mm. et puis vous avez énormément d' influence. tey da ngay xool mais bu yàgg yàgg lu fi amoon ay diisoo nga daan dégg. Mm. muy émission yi impacté. mais tey looy gis tey looy gis donc loolu ñun ñëpp. dégg naa benn psychologue lu expression bu neex la muy wax naan dañu war a def national donc ñun ñëpp ñu war a xam ne problème bu mën di am. suñu problème ñun en tant que sénégalais. problème bi mooy ndëpp li foog mu am initiateur. suñu suñu suñu suñu suñu suñu problème. problème la en tant que sénégalais. mais sëñ bi mais mais le gouvernement est en train de faire des efforts ils sont en donc de de dégager donc des moyens avec une stratégie et une vision assez claire. mais maintenant. waaw bisimilah soxna si voilà maa ngi jégalu de yaa da nga da uh-huh. euh, am benn regard bu si nit am est di changer sëriñ bi parce que tey boo xoolee euh, jeunesse bu bëri ñoo xam ne dugg nañ ci DER bi bëgg ay financement amuñu mais ay projet yu dëgër lañ lay tegal yoo xam ne ci mbay lañ ko wékk ay doomu baykat lañ amaana li leen manqué mooy jafe euh, jumtukaay uh-huh. parce que nekkatuñu période boo xam ne exploitation familiale moo lay doy mais sooy bay da ngay am vision ak foo xamante xamante ne si nga mën a jàppale sa askan. dañuy dañuy sant yàlla bu changement amee. xam nañ baax a baax àll bi xam nañ la fa nekk. Ah, tey jii tey jii problème mi nga xam ne exode rural créé na ko dans le rural kenn xamul nu mu toll. même désertification bi nga xam ne mi ngi avancé dikk loolu sax moom moo ko yokk. danga dem ci àll bi c'est vide ñëpp nga diggante Dakar dans la banlieue ak Touba. dootoo fekk benn bara boo xamante ne bii mi ngi ci àll bi tey ji di di bay da war a bayee daaw da daaw boo xoolee li mu li mu taw ci Sénégal ñun xëy na ay ndaw lañu mais mosuñu fekkee ndox mu day noonu ci biir ci ci biim réew euh, nga gis ne fii tey jii nit ki ñetti weer lay liggéey wala ñeenti weer maximum huit mois ki des yëpp dañuy toog ci garab gi di dem ñi ak waxtaan et dans ces conditions naka lañu ñu mën a aspirer à une certaine situation c'est pas possible donc ma ne il faut mu am changement de mentalité ñu xam ne li nga xam ne pouvoir public yi peut-être ñi ngi koy def ci àll bi tudd nga lay mécanisation ñaata tracteur la dugal ci àll bi kenn xamul nu mu toll yi yi ma nga jógee Inde yi ma nga jóge Brésil da ngay gis koo xam ne dañ koy jox tracteur mu wóolu ci ko tracteur di jaay ndox ça c'est la faute à qui à qui oui le oui le moi je pose la question. donc non non non non tracteur bi nit ki boo ko subventionné mu jënd ko moom su ma nee tracteur bi boo ko subventionné à 70 pour cent. jël si tracteur yaa ko moom. mais xëy na jaaykatu ndox jaaykatu ndox lañ ko jaay jaayu ñu ko béykat. loolu la loolu la loolu la nga def ci mais non non non ci turu béykat la ko jënd turu béykat la ko jënd ça c'est un d'objectif donc te ji changement transformation sociale boobu ci boppam mooy li nga xam ne moom mënut ta ñàkk te ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi di ko intégré dégg naa léegi nga fi tudd ñoo xam ne ñu a suñu réew nangam nangam ci parta c'est important mais loolu nañ ci bàyyi xel nañ ko ci boolewaale fexe ba en retour aux fondamentaux pour que ñu nga xamante ne bii li nga xam ne moo tabax suñu suñu société am nañu ko on a valeur la nañ ci dellu et maintenant avec la vision et l'aide des pouvoirs publics qu'ils mettent les moyens qu'il faut que ni ngi dem liggéey très bien euh, sëñ bi Mbacke bon nu ma ko junjee sànq ministre conseil nga mais également conseil municipal ci communauté rural bu Touba su ma jumul euh, mu ne su la am ci plateau te dee su waxtaan ak yow ci mbirum politique fan yi ñoo ngi dégg décision boo xamante ne ci niñ ko am projet de loi boo xam ne ci ni ñu ko waxee ajuma ji di ñëw war nañ koo jëmmal assemblée nationale mu di ay élections locales yoo xam ne dañ ko jàpp ci réew mi dàqu ko yaakaar naa bi mooy ñetteel bi yoon sax ñu koy reporté euh, aw nañu yoon reporté waat ko date bi xamaguñu ko ndax yow déjà politique bi nga doon entre parenthèses ministre conseiller bi nga doon jàppoon nga ne report gi mën na ñàkk wala mënutoon a ñàkk. bon ce ce ce ça dépend des des conditions. tax ñu ñu reporté ko. parce que bu ñu wootee bu ñu wootee dialogue national tey jii pratiquement acteurs yëpp nekk ci. Euh, ñu nekkat sur 27 points sur les 25 am nañ ci am nañ ci accord. élection locale yi c' est vrai toxal nañ ko ay yoon yoon yoon mais bi yoon foog naa ne même fixé nañ date bi su ma jiwmul on a parlé du février donc loolu sa c' est déjà très bien donc je pense que ne li am solo mooy date bi fixé nañ ko nañ ci ak ñu dem ñu wate ji 27 février 2022 2022 et dans moins et les législatives va très vite législative c'est prévu au mois de juin de 2022 mais xam nga finalement on sera bi 2022 année électorale jóge ci lii jëmati ci lële est-ce que jàppoo ne tamit problème mu calendrier électoral bi waruñu ko gën a saytu ba nga xamante ni dinañ def moyen de politique moyen d'élection nga xam dinañ mën a jublu dëgg ci liggéey bi est-ce que loolu tamit c'est pas un mal boo xam dañ koy def suñu réew. le mal c'est c'est manque de rationalisation de la vie politique. waaw ñu ni ñuy politique la ñu waxtaanee fii bii nii salon yi boo demee politique la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. au Sénégal a plus de 300 donc ça c'est un problème moom laa la wax léegi am na loo xam ne ñun ñëpp la. ñun ñëpp la interpellé. mais donc am ñoo xam bu ñu leen falee c'est pour régler les problèmes. c'est-à-dire que yéen ñi nga xamante ni nekk au pouvoir mënuñu continuer ak yéen di constater les problèmes. on les constate pas on est résoudre. c'est pour ça qu'on a fixé la date des élections au 27 février et ça c'est un acquis le reste moo de bu de juin def élection législative mais parce que aussi li wax lu am euh, février nga def ay local parce que la juin nga dem législative un an après nga dem ay présidentielle donc 2023 année électorale année électorale lay doon en fait compte dañuy 2023 ah, ah, nga ah, def mm. d'autant plus que yéen seen mbër du bokk laaj bi amul tontu <laughs> wala. laaj daa wax il a fait une affirmation. <laughs> moom daa wax laaj dafa wax. est-ce que seen mbër war naa bokk. moom moom daa wax laaj dafa wax. non j'ai interprété la constitution. dafa wax moom dafa wax laaj dafa <laughs> wax. d'accord léegi bala ñëw ci ndax mbër mi eh, bala ñoo ñëw ndax mbër mi war naa bokkam déet yaa ngi nekkoon ci développement mu di jugee ci euh, local yi dal ci législative yi man ma teg ci présidentielle yi ci yi ci mhm. war a yi ci war a yi ci war a topp nga ne li ñu war a def mooy rationaliser euh, c'est-à-dire la vie politique au Sénégal. parce que Sénégal ku mel ne parti politique. Ah, loolu tamit problème ndax ñu créé parti politique. loolu problème la. ça il faut ñu xool dëgg suñu bi ñu ñu ñu nangoo seetu xool li nga xamante ni moo rafetu ci li ñuy def. kenn ku ne def effort. nit ñi nangoo am kilifa. xam ne kilifa mënut a ñàkk. te gis nga ñi lay sànq di lay créé le parti politique gis nga boo créé ba pare boo gëstoo doo gis kenn. ko kii créé sa problème boobu lay amaat. ndax comme mu koy créé def ci xaalisam ëllëg ku yëngu mu ne la doo ko fi wax. et puis et puis ñii ñëw ñii ñëw dina sóobal naan demee élection. <laughs> Euh. sa xaalis rek lañ bëgg a lekk. les opérateurs booy opérateurs boo dee ba ci ba ci takkusaan côté ba. di nga xam seen lépp ci li ma ni dëgg ba li ma wax ni moo c'est parce que kuy lancer parti sa parti lay ne léegi nga commencé def sa xaalis wut sa siège di ko fay ëllëg ku ne la fii nga jaar doo fi jaar nga ne ko génnal samay siège mooy mooy ñàkk ñàkk démocratie ci biir parti politique yi ñuy wax rek gis nga gis man day faral di wax ne mm-hmm. Fati wax est-ce est est est est est-ce nañ maanaam euh, disons li nga xam ne moom lañ moom lañ doon ci démocratie ci biir réew mi mm-hmm. Est-ce qu'on est digne d'être les héritiers de ceux qui ont été là avant nous, de ceux qui construit ce pays-là boo xoolee jafe-jafe yi nga xam rek même nga xool le le discours dans le champ politique hmm? tey jii da ngeen da dem élection ñu ne diw est un candidat confrérique moi je peux en parler parce qu'on l'a vécu en 2019 ñu ne diw candidat tel tel waaso mais mais ak loolu fan lañu jëm ci biir Sénégal fan la ñu jëm biir Sénégal. c'est vrai très avant may dem ci Makumba. waaw parce que da nga dugg sànq euh, Touba euh, ndax moom kilifa la foofu ci mairie ba Touba ku nekk xam ne. Touba taalibe laa fa. waaw mais am nga fa am am nga rôle quand même sëñ bi foofu ci ci mairie ba. nga que Mouhamed Sànq yaa ngi koy junju. te candidat la voilà. Euh, candidat la moom day affirmé rek. <laughs> donc donc mën nañ dugg ci infrastructure parce que déggoon nañ ngeen di laaj ay infrastructure comme ni ma ko waxee rek Pape Djibril mais comme moom Pape mooy affirmé moom mi ngi fi wala assuré <laughs> wala wala wala infirmé wala confirmé laaj bi mooy candidat nga am déet candidat ci lan ci mairie bo je ne suis pas candidat euh, tontoo daaw ci màggal gi mais réponse daf ko neexul <laughs> c'est pour ça il revient kon baax na léegi <laughs> léegi Fatou yëggal non je ne sais pas parce que parce que d'abord d'abord il faut nga fàttali mm. nit ñi Touba mairie ba na mairie ba na muy dem sëriñ bi mooy tànn te loolu dama jël ñun ñi dañ njaboot bi dëkk Touba mais Sénégal gépp dañ ko jox boobu cër mm-hmm. sëriñ bi mooy tànn ku ko neex. d' accord li sama question muy dëkk la boo xam ne day màgg. sur le plan démographique sur le plan économique ñu ngi wax lu jëm ci wàllum infrastructure am na loo xam ne euh, peut-être état moo ko war a def mais foofu mairie ba ndax mun nga wax yenn jéego yoo xam ne yeneen ko fay def ak prendre en considération également la population qui devient de plus en plus importante. non mais mais mais euh, mais wax naa léegi euh, fan yii ci ginnaaw mois bi le maire a créé quand même près de loolu loolu mooy ñi nga doon wax léegi ñi ma doon wax léegi am na am solo la quand même. Mm. parce que aussi nit bu defee lu baax nañ ko ko nañ ko nañ ko ko nangul. fii jamono yu toll nga nga nga fexe ba ñetti téeméeri gone am ay xëy di xëy kenn ku nekk tamit am am loo xam ne dana ko yóbbu këram. bu weer dee loolu foog naa ne effort la. Mm. Euh, boo boo tey ji boo fa demee ña ngay ña ngay tabax ay poste de santé ña ngay yokk aussi ndox ma barki démb sëriñ bi dénkaan na leen ndox mi ñu leen kër na ngeen ci liggéey parce que ndox mi chaque année. ñu def ci koom mënul jeex te gis nañ ne waxtu ne problème day yokku kon na ngeen ko saytu ñu tegal benn comité ñaa nga maire ba maire na xaalis foog naa am près de 500 millions foog naa moom lañ moom lañ budgétisé daanaka danañu ko ci def ba noppi nag saytu ko déjà jël ay ay de forage parce que même nekk forage ëppatul ay conducteur loolu wax nañ ma ko barki dem jël ay conducteur de forage jël leen fa di leen fay ñu koy toppatoo am na jéego yoo xamante ni ma ngi koy euh, koy seq loolu loolu mooy dëgg. Makumba waaw ah, demal Makumba. ma ñëw ci laaj bi nga doon wax sànq. est-ce que sëñ bi yaa ngi teew ci réunion conseil municipal yi normalement. teew ma ci lu bari de. ndax lan. parce que gisu bëri sama présence am na fa benn njëriñ loolu hmm. bu ñu ma soxlaa nag. parce que parce que maire maire ba fa nekk aussi dafa am loo xam ne moom la ñu moom la ñu seq dañu bokk kilifa mu di sëriñ Sidi Sène Abdoulaye ñu boole ñu ne ma na ngeen ànd ngeen liggéey. loolu si bu la ko si kilifa defee dafa am noo xam noonu yi nga war a doxe donc man lépp lu jëm ci wàllu mairie ba maire ba lay déglu léeg-léeg moo ma ne ma sëñ bi de soxla naa la ci nangam ak nangam ak nangam nangam loola ma def ca la ma ci war a def lépp di ko toogaat sama kër mais bu dul loolu dèjà mi ngi naa yow candidat keneen keneen di ko wax donc day am yoo xam ne sa peut gérer et loolu aussi nañ ci bàyyi xel parce que nit ñi dañoo doy waar wax naa nit ñi fu ñu xajul ñu dugg di créer ay problème pour après di ca dund mais moo euh, moo tax ma j'ai j'ai fait ce retrait maintenant bu bu amee bureau municipal boo xamante ne bi y a des moom mu soxla sama présence mu soxla sama soutien xam ne am na ko su ma moo damay dikk hmm. léegi bu dee ci wàllu conseil départemental bi itam dégg nañ yaa ngi ciy def ay jéego est-ce que fas nga cee yéenee doon candidat maa ngi ciy def ay jéego fa dëgg loolu naa ko de ne ko samay source la protège tes sources ma man xam naa presse bi du ma ay sources hmm. waaw ndax ah, la indi en erreur bëggoo doon président conseil départemental Mbacké sa source de la indi en erreur sa source de la indi en erreur léegi léegi léegi moom na la wax hmm. sa source boo génnee nga laaj nga ne ko sëñ Abdou nee na ban acte la posé bu waree de moom soxla na conseil départemental waaw d'accord léegi bëgg nga wala bëggoo du ko du ko du ko du ko dégg bëgg nga du ko dégg loolu des na ci kanam insha allah eh, sëñ Abdou léegi am na beneen am na beneen question mooy Touba aussi euh, mooy deuxième grande agglomération ci wàllu démographie au Sénégal am ay chantier yu mag léegi boo fa demee sax da ngay gis ne il y a une périphérie une banlieue entre guillemets buy développé wu ci à grande échelle. tey jii Touba yéen ñi nga xam yéen nekk ci conseil municipal bi est que def ngeen liggéey boo xamante ni moom mooy ñuy wante ci benn tableau Touba en chiffre. Mhm. cest dire le besoin nan lañ ko estimer population bi nan la toll. Mm-hmm. ah besoin ci wàllu ndaw ñi nga xam yëngal na Sénégal fi mu ne fan lañ ci toll ci wàllu xëy ndaw ñi mm-hmm. Touba ci wàllu industrie fan la toll mm-hmm. jigéen ñi seen kii fan la toll wàllu paj gi le plateau technique à Touba est-ce que tey jii ce travail est fait par le conseil municipal euh, mi ngi ci parce que PACASET bi mu ñëwee parce que quand euh, def nañu évaluation jël ci mairie Sénégal Touba a été choisi parmi les villes am na waaw am na infrastructure yoo xam ne ñoo ko fay def ay tali ay ak ak yu mel bokk na ca un plan un développement bokk na ci boo xamante ne bii besoins yi yëpp dañ koy quantifier xool ko jigéen ñi mag ñi ndaw ñi xool également dëkk bi euh, lan mooy euh, lan mooy les niches yi nga xamante ne bi peut-être mën nañ cee war nañ ci mën a liggéey. les opportunités màggal gi ban apport la war a mën a amal euh, dëkk bi. Mm-hmm. ñu xool aussi également chômage chômage ndaw ñi problème mu pollution fa nekk problème mu environnement yi fa nekk. et pense que terme de ce travail là dinañ am benn plan directeur boo xamante ne bii bu am solo lay doon loolu ci wàllu assainissement par exemple plan directeur am na gis nga daaw doon nañ ci wax mais léegi am na ONAS defar na ko boo xamante ne tous les tous les acteurs yi nga xam ne ñu ngi intervenir dans ce secteur là ci la ñuy xool conformé wu ci maintenant jëm. est-ce que liggéey bu ñu délégué fi mu ne. fii ci kanam la. waaw awuma satisfaction ci sama sama question. parce que pour man tey jii agglomération bu toll noonu. Mhm. dafa am ay besoins te ci contrôle Euh, ñi nga xamante ni ñooy fréquenté dëkk boobu yëpp dangay gis ne dafa am ay urgence yu ñu am urgence sanitaire ci la bokk urgence ci wàllu industrie ci la bokk ndax la fa ndax ndax y a un euh, marché de consommation extraordinaire tudd nga léegi màggal gi jeexitu màggal gi ci dëkk bi parce que dëkk bi c'est 230 milliards mais 230 milliards yi dañ ko essayé waaw kii la nu mu tuddati taux de extraverti la waaw léegi nan la ñuy def loolu ba dëj ko fa am lu fa des am benn plan Marshall ci wàllu marché yi ba nga xamante dinañ ko mën a dimbalee ña nga ñoom ñoo fay yeewu est liggéey boobu nekkul lu ñu délégué par exemple une institution comme Touba ca kanam aujourd'hui non délégué wuñ ko conseil municipal bi existence am finalement duñ ko relativiser. de nga conseil municipal mënu ma ko sori parce que nee naa sëñ bee moom. alors lu sëriñ bi la c'est ça le problème aussi. àllu sëriñ bi la man mii sëñ bi mooma moom donc dafa am yoo xam ne mënu ma ci sori mënu ma ci xóotal ba seen liggéey duñu du ngeen duñ ci def taxaw seet xool euh, ndax dañoo war a yeesal dañoo war a yeesal conseil bi soppi ko wala mais mais mais mais kooku yow da nga jël audience sëñ bi nga wax ko nga ne ko sëñ bi yeesal sa conseil bi soo bëggee suuf mën naa la audience nga leeral ko ndax xam naa ca nga bokk ndax tubaab moom dëkku ñëpp la loolu sañ nga ko mais man personnellement am naa ci limite am naa ci fu may jéem parce que taalibe la fan naa ko soxla si léegi mais li nga xam ne mooy li wër sa móor moo di le potentiel est ténor tey jii boo jëlee boo jëlee màggal gi rek mm-hmm. on a fait l'étude avec sañ mm-hmm. euh, sëñ mm-hmm. boo jëlee tey màggal gi rek dama jëlale Touba mais tey màggal gi maa ngi tirer le du Sénégal tey magal gi manoon tirer le développement du du Sénégal euh, tey magal gi suñu nee deux cent trente milliards et ça c'était il y cinq ans bul fàtte ne dañ ko defoon cinq ans après mu yokk de trente milliards donc c'est sûr que bu ñu ko defaatoon ren ji encore dafay dafa yokkuwaat. ren moom. non non non su ma nee ren mooy bii di ñëw. bii di ñëw mais mais ñu nekk laa bu ñu ko defaa ji dafay dafa yokkuwaat. day yokkuwaat donc tey jii loolu da jël makka. Màkka tey boo boo boo génnee pétrole bi lu ëpp ci seen ressource ci aj ci aj gi ak umra lañu koy jëlee dañu organiser wu ba nga xamante ne bii maan biñ ciy amee kenn xamul nu mu toll tey jii aussi tey ville de Touba mën na loolu le Sénégal même mën na loolu te su ma nee Touba il la màggal de Touba je parle de tous les événements religieux yi nga xamante ni mi ngi am ci réew mi. mais mais lan moo tax euh, lan moo tax loolu amul lan ko accompagnement bee des jàngat taxawaay bee des lan moo tax loolu amul. loolu mooy suñu cet nous on a essayé nous on a essayé parce que pour la première fois ñu quantifier ne tel événement dana eh, dana am na am na tel impact économique dana générer tant yu mel nii mhm. yemuñ ci loolu la on a invité tous les hommes d'affaires parce que parce que ñun loolu sëñ ñu sëñuñ ko def en tant que comité d'organisation mhm. mais on a invité les hommes d'affaires ne mais kaay leen lii am na fi euh, tey nag yi ak ak giléem yi ak xar yi c'est 33 milliards chaque année loolu der yi rek da ngay imaginer li manoon na def ci tey ji boo créé woon une mm-hmm. industrie de de tannerie surtout Touba ak Ngaye ça fait peut-être combien cent kilomètres savoir-faire bi koy liggéey ba nga foofa mm-hmm. donc y a donc dina y a quelque chose à faire sur sur cet axe-là mm-hmm. xalaat yi doon la demee le conseil de des ministres décentralisé bi amoon jurubeel ban place la ci Touba amoon le Conseil des ministres décentralisé est-ce que ces questions-là ont été mises sur la table discutées. mais mais aussi yan résultat la jural. waaw waaw xam nga xam nga xam nga buñ nee buñ nee dañuy def conseil des ministres à Touba. Euh, à Diourbel. Mm-hmm. su ma nee ne Touba. Mm-hmm. da ngay xam ne boo nee Diourbel Touba nga njëkk a tudd. Mm-hmm. la ci firnde ba mooy ñëpp Touba lañ fanaan si Touba lañ dal. tout à fait kon Touba avait quand même une place extrêmement importante dans ce conseil des ministres là. mais encore une fois. am na loo xam ne man du ma ko delloo au niveau de l'état ou au niveau du gouvernement. Mm-hmm. ñun ñoo war a taxaw. parce que kenn ku nekk ci ñuul tey la nga nekk monsieur business bopp te jii bien xoolal la publicité mouride au Sénégal combien ils sont combien ils prospèrent. te ñëpp individuellement te ñëpp wut nañ kër Touba. te am nañ kër Touba donc tey jii ce sont man ñooñu laay interpellé d'autant plus que ñun dañu am culture boo xam ne depuis bi sëñ saa di gas raay bi ak murid yi sur fond propre. di leen fay culture boobu tey jii moom la war a delloo si. léegi qui doit donner le ton. culture bi mooy la est-ce que c'est culture moo ne ñun ñu taxaw en tant que talibé. Mhm. investir à créer fa ay emploi li nga xamante ne bii am nañ ko feneen ak feneen ñu tomp ci aslëf andi ko fa développé dëkk ba euh, Mouhamed Baal ma en ah. parlant d' investissement xam nga sànq yaa ngi ne mbirum maire bi mbirum sëriñ bi la waaye nguur gi ñëpp ko bokk te Touba wax nañ ko c'est la deuxième c'est la deuxième ville ah sur le plan démographique mm-hmm. état tey ñu ngi ko fay xaar ci ay points yu bëri lu jëm ci emploi des jeunes ñu ngi koy wax lu jëm ci infrastructure mais surtout surtout emploi bi ak ay euh, bërëbu liggéeyukaay parce que ku nekk xam na ne su passé commerce bi mm-hmm. ñu bëri gisuñu seen bopp ci activité difficulté yu bëri donc boo demee commerce rek dafay gis la plupart du temps. boo jëlee boo jëlee infrastructure yi et surtout le rôle de l'État <coughs> barki dem rek la ñu fa jógee avec euh, le directeur de la de l'ONAS tey jii ña ngi fay def assainissement des des eaux usées boo xamante ne bii mën na lu mat juróom-ñeenti milliards daanaka pare na ak 80 pour cent avant màggal dinañ ko inauguré tey jii boo jëlee 30 bañ fa doon def ëpp na 12 milliards moom itam xëy na balaa màggal. man na mën naa sori. ñoom kay balaa màggal rek. hôpital màggal déet mën naa sori laa la wax de. infrastructure dañuy utiliser ci màggal mën naa sori laa la wax man naa sori laa wax. donc lu leer laa wax. mais constat mooy balaa màggal nga gis directeur yeeg ministre yi ku donc ah, euh, des projets inachevés. ça c'est lapsus. <laughs> des projets <laughs> inachevés. <laughs> c'est après que des projets inachevés. c'est des projets nga xam ne kat yu ba ne hôpital du fi am hôpital du fi am mais tey jaar fa yoon Daaru Muxti certainement moom romb na ko barki démb xam naa ba demee nee na nii naa ko gis naa ne pareegul gis naa ne pareegul ba tey gis naa ne pareegul ba donc donc moom laa lay wax ne la mhm. tey jii quand même en de en de bilan bu nee bu ñu nee Touba c'est pas xam nga li am solo moo di ne mhm. euh, wax naa ko léegi sëñ euh, sëñ mun taxa c'est c'est une référence euh, voilà spirituel c'est une sommité maanaam ñun mu imaginer moom li mu li nga xam ne moom la représenté ak lan mooy dayoom loolu yàlla rek moo ko xam. surtout sa vision. sa vision yàlla rek moo ko xam. Mm. donc c'est pas pour rien que léeg-léeg muy wane sa satisfaction par rapport a certaines réalisations c'est ça aussi la vérité nekkul kuy waxant mm. donc bu bu su bëggee ci mbir rek mooy mbir moom am na parce que moom yàlla lay waxal day wax ngir yàlla. Euh, ci budget mairie Touba laa bëggoon laaj ba xam est-ce que pexe am na pour ñu yokk budget bi dëkk bi ni mu toll budget bi ñu naan ay cinq milliards ak ay 6 milliards yu côté yu mel noonu est-ce que pexe am na parce que ñu ci bëri dégg naa ñi sant Mbàkke dëkk fa ñoom ñooy yor ay centres commerciaux yoo xam ni suñu leen ne kaay leen ngeen fay ñu bañ wala ñu yónnee ci sëñ ba ni leen seen dëkku maam la amuñu droit fay est-ce que pexe am na pour ñu mën a élargir euh, assiette bi nga xam ni mooy jur budget bi. Euh, lu ma leer man xaw ma fa mbakki mbakki ba am centre commercial kon encore une fois su bi mi ngi noonu xaw ma ko fa mbakki mbakki ba am centre commercial Touba nga xam ne ñoo tëye commerce ba yor xaalis ba sant ñu mbakki am na fa nag ñu fay góorgóorlu def day ma def lii mais mbakki mbakki ba am centre commercial immeuble R plus nangam ak Touba moi j'en connais pas te ki télévision lay waxee waa Touba ngi may seetaan li nga xam ne nag mooy mooy mooy li am solo moo di ne bala ngaa yokk sa budget mais da koy recouvrer parce que budget prévision la boo nekkee boo boo taxawalee cinq milliards mais boo demee dem dem dem ba dellu si ñaari milliards sax doo ko am kon c'est pas la peine nga di ko yokk. lu tax difficulté dafa am parce que yu bari moo tax. bokk na ci li ma doon wax léegi encore man dama dellu siwaat ci problème mentalité bi naka jekk ki nga xamante ne bii moo di ab taalibe pour mu fay l'impôt c'est un problème. lu tax. lu tax parce que rapport bi ñu amoon ak tubaab ba tubaab indi fi lemp. Ah, xëy na tamit dañuy fay lemp. ci laa jëm si seen marché non non ci ci laa jëm si. bu dee chaque année nga fay lemp sa marché lakk. may marché ba sax moom marché occas ba la muy lakk bëriwul. Mm-hmm. donc loolu am na ci donc yaa am na am na barrage psychologique boobu pour que nit ñi eh, am am culture di fay di fay lemp Sénégal yi am na boobu culture mais quand même boo duggee ci fu la gën a àllee foofu la foofu la ba ca des itam moo di ne li nga xamante ni moom la gën kilifa ku baax doon wax te tey muy devise Touba ci kanam di laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam. Mm-hmm. ça aussi c' est extrêmement important. c' est très important. très bien loolu ñaari dem ci Mamadou Ndiaye ak interne. pexe amul ci élargir. Euh, pexe du ñàkk fond de dotation bi ñaata la pexe pexe pexe du ñàkk. fond de dotation bi ñaata la pexe du ñàkk mais mais mais mais mais mais dama dala bala ngaa bala ngaa yokk sa fexeel ba recouvrer li nga xam ne moom problème de recouvrement bi problème de recouvrement bi nu ñuy def solution bi lan la loo yaakaar ne moom la. mooy li wax naa ko léegi laaj li ñu def ko fu ñu xam boo ko di ñu jox la. Hmm. mais ba pare mais ba pare. <laughs> c'est très simple. wax na ko mais. tamit Sénégal gépp la nag. mais le commerce à Touba par exemple dafa nekk activité boo xam ni. ko Fatou waxee mën aussi xam nga réew dafa am nu muy doxee. doone ñii nañu fay lii ñee lu ngeen mën ñu fay ko lool c'est-à-dire réew dafa nu muy doxee day tege ci charte. donc fiscalité bi lañ réformer. moom lañ war réformer kon. bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee eh, déjà tey jii boo réussir disons élargir l'assiette fiscale lu fukki ni doon fay nga fexe ba ñetti biir di ko fay xam nga la day day day day daal di mën a woyof la ca des nag ne que xaalis bi lay jox ñu am claire conscience que ne kat mu war a dem foofee lay dem. et ma wax la aussi beneen affaire tey jii bu dee Touba. taalibe yi pare nañ pour joxe lu ne. Touba ci kanam firnde la ci day taxaw ne kat damay laaj addiya sama objectif mooy 300 millions ñu ngi jox ko 1 milliard 500. Mm-hmm. loolu fi muy am bëriwul kon nit ñi am nañ pas-pasu joxe. am nañ yéenay joxe te loolu du ñu dëkk Touba dong ñu képp koo xamante ne bii taalibe nga di am murit foo mën ne ci monde bi tey jii bu ñu la woon da ngay joxe addiya ngir mi développé Touba mais avec plaisir nga ko boo màggal see. très bien ñaari laaj ñoom ñaari laaj. jël Pape rek benn commerce bi dafa am solo te Touba. Mhm. ña fay commerce si Sénégal fu nekk la ñuy jóge ci Sénégal. dem commerce ji fa <laughs> donc melting pot la. Mhm. ñëpp dañu jóge fépp ci fu nekk ci Sénégal nekk commerçant jàpp ne foofu. monde consommation la te nit ñi dañuy jënd dañuy jaay ñu dem installé wu fa est que tey jàpp nga ne marché yi ñu am Touba dëppoo na ak ambition yi ak xarkanamu Touba. non jàpp na loolu jàpp na loolu man jàpp naa ne tey jii marché ya fa nekk muy marché bi muy marché occasion ba fa nekk tey jii état ba mu toll par rapport ak dayab Touba par rapport ak potentiel Touba. Mhm. jàpp naa ne fii war nañu ko weesu. te te amul amul benn murid boo xam ne yéen a moo Touba lu ëppalee wala lu ko gën rafet baa lu ko gën dëppoo. ak jamono. te Touba bari nay marché xanaa kay occasion da cee gën a mag mais bari nay. waaw yëpp rek yëpp rek moom mooy moom baaw moom échantillon bi nga xam ne baax balaa boo boo ko xoolee xam xam na mel moom moo ci importance gis na mel. kon kay yeneen yi sax daanaka waxaale boobu. mooy activité principale bi. te te te loolu. te loolu te loolu aussi faaw ma nañ ko nañ ko souligner parce que jëf ju baax la. sunu maam ju baax ja mu di Serigne Saliou. gisoon na ko. boo demee jànnatu gis na marché moderne ba mu fa def. marché moderne la fa tabaxlu. mi ngi ci wetu këram mhm. a aussi le défi de la maintenance de l' mais mais mais tey jii effectivement li nga wax Touba mérite na loo xamante ne bii moo moo gën a la fi ma kumba da ko junj mais sori woo ci ma bëgg laaj la ko. am sa mhm. tontu en tant que ministre conseiller. 2024 Macky Sall day président day doon candidat am déet ak ndax am na ci droit am déet bu fekkee sukkandiku nañu ci constitution beeg maanaam li nga ci xam daal. li ma ci li ma ci xam moo man Macky Sall laay jàppale. moom laa àndal moom laay politique jàppale géej li ko sabab wax naa ko fu nekk moom woon ne ma kat kaay jàppale moom parce que am naa yéene ci Touba te gis naa ne maa ngi koy def lu euh, xam. lii wala fi di wax nag gan du yewi ay bëy wala man gan ci la ko neex moom lañuy jàppale. moom nee na lii maandu leen ci ko dañ ci maandu bàyyi ko moom mi xam ne mooy nday mbil mu la moo venu mu jël sa décision.

Mmh. Ah oui, oui. D'abord, d'abord, on fait, on fait pas de la politique pour des postes. li am solo man boog li ma amal solo mooy impacter sur la vie sur la marche du pays man c'est ça qui m'intéresse c'est pas avoir des postes à la limite même poste boo koy mën na tënk ndax am na yoo xam ne sax xëy na peut-être dootoo ko sañ wala dootoo ko mën donc tey li ma amal solo moo di les réalisations qu'il est en de faire à Touba. te ma nga fay def ma nga fay liggéey ma xam ci lu ma xam ci lu leer la ma amoon solo moom la nga xamante ne bii seq na ko ak sëriñ ba ak lamu ak fa ko sëriñ ba teg te te uma ci benn kumpa loolu mooy li ma amoon solo su ma leeroon ne benn problème am na ci diggam ak sëñ bi benn problème am na ci ni mu ni nga xam ne noonu la jëfe ci ay ay réalisation ci biir dëkk ba mais écoutez les gens allaient prendre leur responsabilité parce que sëñ Tuubaa moo ñu gën a doone ci àdduna parce que li am ne sëñ Tuubaa moo ñu ko may kii ma ngoon daaru muxti démb sunu maa ngi koy sant di ko gërëm sax sëñ Moussa Mouhamed dafa tabax kër ba mel na war a mënuma sëñ bi lii am ma jox la. mais mais mais mais loolu amul prix. amul njëg. te teraanga suñu tubaab yi moo ko mën loolu duñ ko jàqaleeg dara duñ ko jëndee dara ci àdduna. mooy barab bi soxna May nekkoon. barab bi soxna May nekkoon sëñ Modou Sadio bu ko fa. Mhm. donc donc yooyu bu la yàlla suturaalee nga am nga nga nga am boobu chance. te am ñoo xamante ne bii écoutez dafay kii donc c' est pas des problèmes de poste wala euh, feneen amuluma la ma amal solo moo di moom may jàppee sëriñ bi ak na jàppee Touba. et jii bu ñu bu bu ñu xoolee def objectivement la nga xamante ne bii def na ko Touba ci ay réalisations sans aucun parti politique. lu bare bare bare bare la te def ko ci dëkk yu bare à part Dakar. sedd na sa xol wala mën nañ koo dolli. mais mais mais laaj dollam. parce que Touba lu fay def Touba mérite na ko ndax Serigne Touba moo toll noonu. bala ñuy ànd ak du benn laaj rek fan yi dañuy dégg benn débat jëm ci affaire xeet ak waaso bon fa mu jugee intéressé wuñu euh, li nga xamante ne ji bëgg naa ko am muy muy sa xalaat euh, muy jëm ci débat bi diw fii la bokk ak diw xeet bi la bokk ak li nga xamante ne ji mën nga ko yëkkati muy kàddu conseil jëm ci ñi ñi ñiy jibal débat boobu ak ak li mu mën a journée lorange waa man de man de li may wax rek moo di nañu nañu soyo di ci ñi nga xamante ne ñooñu fi jiitu woon te tabax réew mi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy kilifa politique yi fi nekkoon te ñoom dañoo boobu dara dañoo wan lu ne dañoo wan lu ne euh, tey jii boo jëlee euh, li ëpp wax naa léegi ci ci njëlbeen ne même jàmm ji clergé bi dugg na ci. sunu sunu bokk yi nga xam ne sax xañ na amuñu nekkuñ ci benn diine diine ab mais mais mais ñu gëm diine Afrique traditionnelle. Mm-hmm. c' est important parce que aussi voilà euh, donc ñoom itam dugg nañ ci. et puis ñu andi ñoo xam ne dañoo am sax respect ci environnement ba garab duñ ko dagg. ça c' est des gens qui sont euh, ñu bu bu ñu delloo donc ci ci ci ci jàggat yooyu. ñu jël ñu jël am te problème li ko sabab muy intolérance moo fi am xajoo bi. commencé wàññeeku euh, kenn nangulul sa morom peut-être gëm-gëmam wala kenn nangulul sa morom xañ na gis-gisam te te te te te bu ñu delloo ci li nga xamante ne bii mooy euh, mooy mooy mooy mooy njàngale mi nga moom la ñu lislaam jàngal mu xamal ñu ne suñu communauté benn la suñu communauté benn communauté la mu xamal ñu ne ñun ñëpp ay ay frère lañu mu xamal ñu ne sunu borom mooy wax ci alxuraan ba tey de su ma neexoon ñëpp nekk ay ñëpp nekk ay way gëm yàlla mooy wax loolu su ma neexoon ñëpp nekk ay way gëm sunu borom demaat nañu ne bu leen di saaga seeni yàlla ndax amaana bu ñu ko defee kat ñoom ñu fayu mais lan mu nga nekk leçon de tolérance waxi alxuraan yooyu dellu nañu ne diine amul contrainte kon loolu képp ku ci teg sa tànk jàpp naa ne war ngaa mën a am ouverture war ngaa man am tolérance war ngaa mën a xajoo sa morom te te te te lu ñuy def dañ koy mën nañ ko def ci turu diine ñëw nekk tel candidat et le candidat de telle confrérie c'est pas vrai on fii benn confrérie bu mës a am benn candidat ay nit ñoo jóg def ay manipulation ba présenter ab candidat ni mooy candidat tel confrérie daal di xaj réew mi ñuy jaar fee ñuy jaar fee avec l' de des réseaux sociaux euh, whatsapp yi facebook yi vocal daal daw mi ngi tojatee bopp ñu dikkati ci wàllu ci ci ci wàllu région ñu nekkat diw sàngam bëggut barab sàngam diw sàngam xeet sàngam ñoo ñoo euh, ñoo ko ngemb muy wax yoo xam ne buñ ko bàyyiwu dana jur musiba ci ñim réew kon xajoo gi nga xamante ne bii moom lañuy ñu lislaam jàngal xajo yi nga xam ne moom lañu suñu mag ñi jàngal man day li may ñaan yàlla te man waxtu wu nekk ci lay dox moo ni loola nañ ci delluwaat te mu am euh, leçon bu am solo xam nga xam nga li suñu suñu réew mi ñi ko fondé kilifa diine ñoo ci ëpp paar ci njëlbéen moom wax ni leen fonkoon avant les indépendances Sénégal tey bu amee jàmm ji mu am képp ku def Sénégalais war ngaa sant El Hadji Mon Fallu Pakki war ngaa sant Serigne Babacar Sy man damay wax toujours ne ñoom ñaar bu ñu jàppale doon Senghor Sénégal trajectoire bi mu jël mën a jël beneen ils l'ont soutenu contre des musulmans parce que ils avaient ils avaient la part des choses Sénégal nekk un pays boo xamante ne bii dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman la ñu jël ab catholique teg ko ci bopp réew mi loolu foog naa ne c'est une très belle leçon de tolérance. ay jàmbaari l'islam taxaw jàppale ko. jàppale ko muy lu wóor kontaan naa donc donc donc tey jii loolu moom la ñu war a la ñu war a xoolaat ay nit nekk nañ fii bokk ci tarixa murit mën naa ko wax sax xarit daan de murit jóg jàppale ko xam ne bokk tarixa murit exemple yooyu mooy exemple yu rafet yi ça veut dire que de suñu suñu politique ni ñu koy defee dafa war a transcender suñu su su suñuy gëm-gëm transcender. li nga xamante ni moo di suñu appartenance ci ay xeet ak yu mel noonu ñun ñëpp nañu xam ne on forme nation sénégalaise ñu jël ko teg ko ci suñ kanam kenn ku nekk liggéey ngir jàmm am ci réew mi jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde ma sëriñ bi euh, déclic euh, internautes yi dañ cee bokk ñoom it fa ñu nekk dañuy suivre émission bi mais am ay question yoo xam ne xëy na du ko jot a waxtaane fii te seen xel ak seen xalaat bëgg ñu ñu ñu leeral ko ñu ànd ci ak Mamadou Ndiaye Mamadou maa ngi lay nuyuwaat. waaw maa ngi lay maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed te gis nga internautes yi déjà réaction yi bari na commentaire yi bari na ci suñu plateforme yi rawatina Facebook live bi nga xamante ni équipe digitale bi ñoo ci doon jàpp ba lépp yemb bare ci question yi nga xamante ni posé nañ ko mais ñenn ñi sax day dañ doon contribuer maanaam di joxe seen xalaat ci euh, émission bi jaajëfal bu baax émission bi ni mu demee ak euh, waxtaan bu am solo bi nga xamante ni waxtaan nañ ko tey ak suñu euh, invité bi question bi ñu tànn nag mooy bu Atoumane Diakhaté ak bi nga xamante jiiteel na ko ci sëñ bi daal di koy laaj ne lu tax moom mu desee incarné leadership am leadership am fële ca fële ca Mbàkke Euh, surtout bi ñu seetloo ni Moustapha Cissé Lo nekkatu fa leader wala dafa retiré wu. ci parti bi. waaw ci parti bi APR voilà. Euh, waaw xam nga xam nga xam nga appaire dafay dafay parti bu bu particulier euh, xaw ma fi foo xam ne am na un coordinateur gisuma ko fi. particulier da ngaa da ngaa rafet da ngaa war wax ji waaye da nga naan day parti bu jaxasoo rek. man mënumaa wax lu rafetut. waaw ah, moo tax ma euh, la rek bu fekkee non la waxee loolu waxin na ma. c'est spécifique. très bien donc man mën naa ko wax moo tax. ma wax non yow waroo ko wax. Euh, non mën naa ko wax. waroo ko wax laa wax mën naa ko wax. waroo ko wax si mën ko wax war naa ko wax. waroo ko wax. <laughs> mën naa ko wax war naa ko wax. wax lu ñaaw voilà donc ñàkk organisation. wax lu ñaaw mooy jaxasoo bi mu wax. yow nag mën nga ne day parti bu particulier voilà. laal ma ko sama xarit sama mbokk taalibe ci ci maamu yaa ngi woon ci day day day parti bu particulier. donc euh, li nga xam ne et puis kenn ku nekk si jikko. Mm-hmm. wax naa wax naa léegi aussi euh, man na ko ma koo xamante ne bii damay damay xëccu ak di loolu loolu du ma du ma ko mais tey jii day suñu borom may na ma. te mm-hmm. fa nga xamante ne bii fa la ñu nekk muy ci biir Touba. heure bu ma heure bu ma wootee tous les responsables politiques yi nga xam ne ñoo fa nekk. heure bu ma leen wootee danañu dikk teew suñu borom may na ma loolu li ci mujj rek mooy bërki démb après am remaniement ministériel coo amoon fa ñoom ñëpp man maa leen dajale ñu def motion de soutien président de la république donc tey rôle boobu am naa ko fa te te te te xam nga mënoo mënoo di mënoo di boole jubale ak di xëccoo ay cër ñaar yu àndut kenn ku ne ak li mën a apporteel président la république man tey li ma ko mën a li ma ko mën a indil surtout du ay xeex ak xëccoo mais mën naa ko indil mën naa ko jàmbal mën naa ko dajaleel mën naa ko tijjil ay bunt yoo xam ne xañ na peut-être ñoo ma ko seqal man ma leen dàqati ji bunt yooyu mais di xëccoo ak ñoom ay ay ay ndooma tàkk wala muy xëccoo ak ñoom yeneen moo tax bi nga dem est-ce nekk di nga nekk candidat ci conseil départemental bi ma ne la loolu àgguñ ca parce que au moins xëccoo ak ñoom ñoom bu ñu taxawee ni ku fa taxaw ni dama bëgg li man war na maa jom mu taxaw di ko bëggandoo ak moom. moom ñu ngay moom. waaw du du du niñ koy defee lañ ko war a defee ku ne ak li nga gëm parce que niñ koy defee am na fu ñu jëm foo xam ne waruñ foonu ak te buñ ko nee fa lañ jëm. warul jar rayante de ak waxante lu ñaaw loolu laa gëm. vraiment loolu laa gëm. beneen question. moo tax du ci wax lu ñaaw. du ma ci tontu ko wax lu ñaaw. waaw jërëjëf euh, beneen bi bii dafa euh, benn internet ku ci mel ni ne Atoumane Diakhaté dafa laajte waat ñaareeli question am daan ne ñooñu dañu lay reproché ne ne yow accessible woo maanaam da nga am dañuy am jafe-jafe pour jot la. inaccessible voilà léegi est-ce que. Euh, yaa ngi fexe wut ay fexe ba. en euh, tant que responsable politique. politique oui ah, bien sûr sëriñ bi la laaj quoi. non non non responsable politique bien sûr précisé na. non non non amul amul man jafewuma jafe jafewuma dëgg la nag responsabilité yi bari na. Uh-huh. responsabilité yi bari na. mais mais mais mais mais ñi ma xam xam ne Touba am na waxtu woo xam ne boo ñëwee sama buntu du tëju. Uh-huh. su ma xasee tijji buntu bi ne ko koccet ba ba deux heures trois heures du matin ku ñëw di ma fekk sàll ma topp. avant loolu nag dafa am aussi ay ay ay liggéey am ay warteef am aussi yoo xam ne daf ma war ci ci biir yoonu murit ma seq ko également ci ak ci biir yoon wi. donc sama lépp sama lépp du 100 pour cent dama ko jox politique. mais mais su ba xasee tijji ba keroog may fatu te du ma tëdd mukk te ñaari waxtu ñetti waxtu jotul. ku dikk euh, da ma gis. téléphone bet sa numéro téléphone bi ma yor depuis 2003 changé wu ma ku ma ci woo danaa ko gis. ku ci bàyyi message naa ko gis. ku ci yónnee whatsapp danaa ko gis Sénégal gépp ko yor. ci loolu la ñuy jàll ci question euh, euh, Sall Souleymane moom ci taxawaayu ndaw ñi est-ce yaa ngi liggéey ngir gën leen gën a mën a fësal jàppale ci seen promotion ñoom foofu ci euh, diggante Mbàkke ak waaw maa ngi ciy maa ngi ciy def sama sama kamtalay kattan. Mm-hmm. pour di pour di jàppale pas ndaw ñi rek mais di jàppale askan wi. Mm. parce que parce que bi may bi may dugg ci wàllu politique la ma slogan ba ma amoon moo di. je m'engage ngir askan wi askan wi moo ci dugal kon nag mënoo ne askan wi moo la dugal ci mbir nga dugg ci ba ci biir te doo geesu askan wa doo leen bàyyi xel donc loola maa ngi ciy def sama kéemtalaay kattan ku ma ci man a wutal liggéey maa ngi lay wutal liggéey ku ma ci mën a wutal projet de financement maa ngi lay wutal projet de financement mhm. ku ci mën a wutal formation maa ngi lay wutal formation mais ndaw ñuy yëngatu ci wàllu bi ñi nga ne ñi ngi yëngu waaw yëpp ndax sollicitation yi fu ne lay fu ne fu ne lay jóge te itam buñ di buñ di buñ di fàtte ne peut-être en tant que kuy jàppale président ci biir APR ndawi ndawi APR war naa leen jàppale mais en tant que également doomi daara doomi kilifa diine képp ku di taalibe war naa laa jàppale en tant que aussi la république képp ku di sénégalais war naa laa jàppale très bien am na beneen laaj Mamadou waaw bu mujj bi mooy en tant que uh-huh. conseiller président de la république ci jafe-jafe yi nga xam ne dundoon nañ ko est-ce que gis nga ni sa euh, rôle conseiller yaa ngi koy matale ba mu ba mu war surtout ci jafe-jafe yi nga xam ne dundoon nañ ko ci guddi ci ay fan yi ñu génn waaw la ma waroon def day def naa ko ngir bay sama war ngir jàmm am te je peux dire que j'ai été décisif ça je peux dire foofu laa ci mën a yem ci sur quel point j'ai été décisif foofu laa ci mën a yem donc loolu du lu wax. mais mën ngeen ñu junj rek tuuti. su ko ñi nga xam ne ñooy poser question yi j'ai été décisif dans la de la paix. ak solution bi ñu ci am. diggante président ak sëñ bi wala diggante président ak askan. ma kumba foofu laa ci mën a yem. <laughs> loolu jërë nga noonu rek est-ce que am na kenn ku weer ci mbedd mi est-ce que question moom du dëgg est-ce que question yu yow rafetal lu jot ki di waxtu rek maa ngi maa ngi dox lu baax ak di ko wax. Hmm. <laughs> Ah, mais question yi jóge ci Mamadou est-ce que du tamit dafay renseigner rek sur taux de chômage bi am ci boor boobu. est-ce que waaw ndax boo gisee. waaw liggéey ñëpp liggéey accessibilité beeg yëpp. xëy na ay complaintes la ñuy indee yooyu. am na fa am na fa ah, am na fa est-ce que na am na fa am na ndaw ndaw ñu ndaw ñu jàmbaare te ñoo fa nekk. Hmm. ay ndaw ñu gore. Hmm. wallahi ñoo fa ñoo fa ñoo fa nekk ndaw yu mat a jàppale te contestation du eh seen culture lu ci bëri. sëñu ñu ko. waaw ah, la preuve bi Sénégal gépp yëngutu ñoom dañoo toog ne teg parce que sëñ leen toog leen ngeen déglu. ku laajul dara nag yelloo na lépp xanaa. d'accord naa ci yow. jërëjëf euh, Mamadou merci beaucoup ñoo ngi lay gërëm bu baax ñooy gërëm également internautes yi. waaw jërëjëf ñoom di leen euh, gërëm ci seen fidélité mais surtout ñu scotché bàyyi xel bu baax émission bi gis nga réaction mm-hmm. ni euh, dinañ ci a waxtaan ak suñu invité bi te je que jox na réponse yi nga xam ne dina leen doy jox leen dig daje ba mardi prochain incha allah. incha allah jërëjëf maa ngi lay remercier bu a baax Serigne Cheikh Abdoul dañu baaxoo bu ñu amee gan ci mm-hmm. Déclic Euh, dañuy jéem a xool ñu ko jege ñu wax ñu lenn ci loo xam ne xam nañu ko ci gan gi ñu ànd ak témoignage yoo xam ne def nañu ko ci ay nit jëm ci sa jëmu yow. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Cheikh mën euh, naa wax ni suñu relation dafa am ñu ko garanti. Euh, Euh, ñi ko garanti mooy mag ñi nga xamante ni euh, ñoo suñu wayjur euh, ba pare yàlla jox leen ay taxawaay ci réew mi jox leen ay taxawaay ci diine yi mën naa ci cité ñaar gannaaw relation bi nga xamante ni suñu ñoo ko bokk ci deret ci maam maaram relation bi ci bi ñu am tey mën naa wax ni sëriñ Abdou Al Amin ak suñu wayjur Serigne Bachir Mbacké eh, Abdou Khader ñoo ko garanti ndax ñoom ñoo jël suñuy ñaari lafu mbubb eh, takkale ko ngir ñu ànd ndax ñu ay ndaw lañu di dox ci diine ndaw sax su ma nee ndaw c'est relatif waaye ñoom ci seeni kanam mënuñoo nekk ay mag. Sëriñ eh, Cheikh Abdoul Ahad damay wax rek benn citation Sëriñ Cheikh bi wax ni à chaque jeunesse sa responsabilité. Euh, soit elle l'assume ou elle la fuit waaye nag l'avenir nous jugera loolu la Serigne Cheikh wax euh, moom dafa nekk ndaw euh, nekk ci dund bu lëndëm waaye yàlla baaxe ko ci d'abord ci juddu mu am taxawaay waaye loolu rek doyul ndax ku ñu nekk sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mooy sa wayjur sëñ Modou Moustapha di sa maam sëñ Touba di sa maam am nga responsabilité boo am ci wàllu diine gi mais moom loolu rek doyul daf ko dafa jóg am taxawaayu boppam ba tax ne tey euh, ci wàllu diine ji euh, wàllu kër maamam mu am fa taxawaay bu am solo ndax gis nañ li mu taxawee ci wàllu euh, commission culturel bi nga xamante ni moo ngànk màggal Touba yàlla def mu mu mu jiite ko di taxawee ay jotaay xam-xam yu am solo ndax booy xool sax. Euh, suñu relation mën naa ko wax ci wàllu cadre unité de l'islam ci loolu la jóge mu am beneen taxawaay bu am solo ndax li ma wax ni moo ko fàggul boppam euh, euh, ci wàllu juddu am na lu ko yàlla fàggul waaye ci wàllu àdduna am mu fàggul boppam lii nga xamante ni mooy taxawaay ci wàllu politique. ah te ma dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ni le péché de la laïcité hésite. plus essentiellement euh, sur sa position de neutralité maanaam laïcité bi nga xamante moom lañu am ci réew mi tey lii kay jafe-jafe bi mu ci am mooy euh, taxawaayu euh, ñàkk péete bi mu am ci wàllu diine moom nag mu xam ni nitu diine la waaye du ko tee mu jël responsabilité am ci wàllu politique jël responsabilité ci wàllu état ah yàlla def président Macky Sall takkal ko ndombal tànk waaye nag mu am taxawaay bu mat sëkk ci wàllu diine ngir mën Euh, am fu mu féete askanam am fu mu féete réewam day wane rek taxawaayam ci wàllu euh, boole këru diine yi bii ñi nga xamante ne dañuy og dañuy woote lii mooy cadre unitaire de l'islam ci membre fondateur cadre unitaire de l'islam la bokk euh, cadre boo xamante ni dafa boole maanaam comité scientifique yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi nekk ci këru diine yi ak association islamique yi mu am ci nag taxawaay bu am solo doomu soxna bu duggee ci ci way politique dafay ñëw ngir Euh, assainir climat politique day ñëw pour assenir loolu nga xamante ne mooy paysage politique bi te moom ci loolu lay dox. Cheikh Abdoulaye Dièye Fatma euh, li ma xam ci moom mënoon naa ko tënk ci benn baat mooy nit ku baax la xam naa ko bu baax sama xarit la sama wëllëre la c'est mon frère aussi. ndax euh, suma diggante ak moom diggante li xam ne dañ ko doon si suñuy waajur suñuy waajur doon noonu diggante boobu ci maam yi ba léegi donc lu bari ak lu yàgg moo ñu boole man ak moom te man de xamuma ndax sàmm naa sama côté mu déet mais moom sàmm na sama diggante ak man sama sëkk yore lu ma dara si côté boobu euh, nit ku ma naaw la nag maanaam mën naa wax ne moom incarné na dellu nit bi nga xam ni bu fekkoon man maay defar sama bopp ni may mel moom incarné na ko euh, dañuy wax nit du xam boppam man xamuma nan laa mel waaye xam naa nan laa bëggoon mel te ni ma bëggoon mel mooy Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ni mu mel noonu laa bëggoon mel bu ma sañoon bu doon may defar sama bopp di mel nu ma neex Euh, ay valeur morale am ngëmam euh, ak sens de l'engagement wam lépp lu xam ne day màndargal nit ku baax mu ngi si Cheikh Abdou Lahad Ngok Alioune Fall di di journaliste euh, fare euh, fële ca fondation Servir le Sénégal di wóllëre euh, ganu Dekki Dik tey li ko jiitit àndoon nañu ci témoignage ak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin Serigne bi ñoo ko déggandoo ñu yëkkati ay kàddu yu seede jëmee ko ci yow bi nga koy dégg lan nga yëg. Mm, waaw kadd yi xaw naa xaw naa des ci man tuuti. xaw naa des ci man ndax wax ji wax ji rëy na wax ji rafet na. mais li ñu wax lépp ci ci ñoom la nekk rek. bu dee bu dee bu dee Serigne Serigne Cheikh Tidiane. wax na lépp sax way juram moo ñu moo ñu boole euh, sëñ Abdou sama sama wajur la woon sama wajur la woon euh, su ma fa mosaan dem damay damay damay sax rus ndax sama su wajur la ci ñaari côté yëpp mais bu dikkee euh, teraanga ji yéwén gi ak nawloo gi ak mbaax gi da ngay da day jàpp ne sëñ Cheikh Mbacke ñëw na ci moom wala si Mourou Moussa ñëw na ñëw na ñëw na seet si ko te loolu foofee la ko doon woon diggante si Mansour ak sëñ Babacar si sëñ mag bi ak si sëñ Hadj Malick ñu euh, sëñ Abdou ak sëñ Bassirou Abdou Khader toujours dinaa dinaa ko waxat tey euh, diine gi Sénégal amee na leen jukkal lu rëy rëy rëy rëy ndax rapprochement bi nga xam ne am na ci communauté yi joué nañ ci rôle bu am solo te loolu man dafay ki sama kanam ma man koo seere te du ma seere lu ma xamut euh, mën naa ne moom mi li mu ci dox ak man li ma ci dox ci ñoom ñooñu lañ ko gisee ndax seen ndax seen ndaw lañ ci woon te moom gis nga cadre unitaire bi mu ñuy waale aussi docteur Cheikh Gueye di ku baax ko jàmbaare ku def liggéey bu am solo dans l'ombre jàmm ji aussi am na lu rëy rëy loo xam ne ñoom def nañ ko ci te kenn yëgu kenn gisu leen loolu loolu moo di baax da def li nga war a def ngir yàlla suñu borom moom moo lay moom moo fay moo tax te te te lii mooy li am solo parce que tey Euh, Touba ak Tivaouane ak feneen ak feneen dañuy benn ndax ñoo bokk pas-pas bi ndax diine pas-pas la mais bu dul pas-pas bi aussi dañoo bokk deret bokk génération bokk bëgg-bëgg donc tax jaxasoo bi am ñu boole sunu sunu bopp te loolu mooy tabax réew mi gis nga tànk tànk mi ngi am crédit yi di di jaxasoo à ce niveau là jàmm rek moo am ci réew mi bu dee Aliou Aliou sama xarita sama xarit mën naa leen wax tey ne leen j'ai fait une révélation mën naa wax ne premier plan de communication bi am ci événement diine ci biir Sénégal moom moo ko defar bi ma biñ ma joxee commission bi yor ci biir pangal gi moom laa ko dénk moom moo defal na plan de communication avant loolu dañ doon sëmbaxloo rek et pour une fois ñu am vraiment une vision claire avec une stratégie ak ay ay ay yu bare bare bare yu ci am ci la ci indee ku mel ne Racine Talla mu def lañu ay documentaire ñu dem jëli koo xam ne dañu def ay écran géant ñu daal dem jëli ñoo xam ne dañu ñëw commencé def ay ay cabine amasi dañu daan toog ñuy wax ay wolof ba dem ñoom ñu jog dem c'est des diplomates du ñu wax dara mais li ñu wax du ñu xam dara hmm. et ça modernise complètement le visage des événements religieux ci la yu jógee même bay def les études d'impact ak bay bay def les colloques internationaux di jël di jël réew naar yi réew américain tubaab di leen fi indi ñuy ñëw ñu commencé bind ay ay livre moom waxu ko mais il a été acteur de ça. moom Alioune Fall moom Alioune Fall parce que boobu gunge na ma ci. te euh, mën naa ko wax fii moom Racine Talla booba mais bon parce boobu ñu ngi ci dafa koy mën a ko dee lii ngeen defal Serigne Touba ren jii na nga teg sa bët un an après il a été nommé directeur de la RTS ba tey bu ma gisee dafa koy wax. parce que Serigne bi le Serigne la doon wax ci maggal gi nee na lu ci waay def. da nga ko gis bu ñaar dendee kër kii di ci yëngatu kii yëngu sax day fay ci ñoom kon vraiment leen sant aussi ci seen ay ay. Euh, témoignage ay donc euh, je suis <laughs> parce que parce que wax gi rëy na wax gi rafet na donc ñoom ñoo baax man li ñuy wax ci ñoom la nekk nekkut ci man man li wax léegi rek soxna si ab ab donga laa nekk Touba di taalibu Serigne Touba nekk bokk njabootu Serigne bi di di di di bëgg lu baax di ci góor góor léeg-léeg nga juub léeg nga kii di di di jóg ko daal. mais c'est ça important mais la am solo rek moo di yéene ji ak jublu gi. te bu ma desee léegi ci ci wàllu jàmm ji peut-être comme comme léegi nga tëj. loolu Sëñ Tuubaa da xam lu mu ci jàngaloon waxoon ne ñu euh, wut jàmm mais yemu ca dañoo wax li nga xam ne moo koy may loolu mu ne da ngay yéene lu baax da ngay def lu baax da ngay wax lu baax dangay def lu baax da ànd lu baax loolu waxi Sëriñ Tuubaa la te ku gis njabootu gi fi nekk ci loolu la ñuy dox mu bëgg na ñun mboolem Sénégal ñu tënku ci loolu xam ne réew mi ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk nekk ci école yi ñoo bokk nekk ci ci fonction publique bokk nekk ci bureau yi bokk nekk ci télé yi bokk nekk ci rajo yi euh, ñoo bokk lépp di daje ci xew yi day ci magal day day ci daayira yi même ñee football sax ñoo day ci stade ya kon benn lañu on vit en communion loolu nag bu ñu ko dara dara dara jaral di ko yàqal bu ñu ko daar dara di jot di yàqal parce que parce que loolu mooy suñu première gànjar gi ñu am bu njëkk da ngaa ñëw Sénégal amul pétrole amul dara waaye nag am na lu mu am loolu ñu am nag nañ ko sàmm parce que pétrole lay jeex de jékki-jékki prix daanu daaw da da daaw lu fi am dem na pétrole bi nekk. territoire négatif moins zéro ci suuf nga xam ne ñu ko am sax boo bëggee tey boo am foog de boo ñëw ñu may la ko. mais suñu gàncax googu ñu am nag bu ko yàq gàncax googu aussi la ci jiituwaat sa nos ressources humaines nañ ko defar. fonkaat ko xam ne kat nit mooy taxaw pour man tabax am réew kon nañ njëkk tabax nit ñi te leen yow aussi nag rafetlu euh, vraiment liggéey bi seen liggéey rafet na euh, jàmbaar nga ñoom ñi aussi Makumba euh, Pape Djibril soxna Fati vraiment liggéey bi rafet na joxoon naa rendu ci Touba xam naa su ma ñëwee Dakar dana ma sonal. <laughs> jërëjëf euh, jërëjëf kër la. jërëjëf yàlla na leen yàlla jàppale. jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaïndé Fatma ñu it kontaan bu baax a baax. Euh, ci euh, wuy si gi nga ñu nango wuy si xat-xat yeeg tolluwaayu jamono xëy na doon na jafe waaye nangul nga ñu ko mbégte la ñu ci am. di la sant bu baax a baax gërëm it ñi nga xam ne ñoom la ñu àndoon ci Déclic soxna Faty Dieng Pape Djibril maa ngi lay gërëm bu baax ma kumba sant leen bu baax a baax gërëm Mamadou Ndiaye gërëm équipe bi Déclic ci njiital Pape euh, Samba ma Mamadou Ndiaye ak service digital ñoom Pape Jean talaata bii di ñëw beneen Déclic geneen gan ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ñu fanaan jàmm.